ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy revenir ci mbiru proposition de loi ñeel criminaliser wàllum góor jigéen suñu réew dossier la boo xam ni nee naa leen ñun ñoo koy toppal suñu bopp ba keroog ñu yegg ca cappaandaw ga keroog am na benn abonné bu ne ñu fexe leen ba buñ ca yeggee publier li ñu yan député ñoo ko voté ak ñen ñoo ci àndul mbir moom incha allah na ci seen xel dal. li tax ñu ci revenir mooy as mbir moo xam ni sax ñu ndax xamoon nañ ni diggante bi proposition de loi bi di tege ci table président assemblée nationale ak bañ koy càmbar ba yegg ca vote ba di ngeen gis ay manipulation di ngeen gis ñuy jéem lëndëmal xelu askan wi ngir intérêt bi population bi war ci proposition de loi boobilee wàññeeku wala jéem wutal lay député majorité yi nekk assemblée nationale te fas yéene wuñ voté loi bi kenn ci maître manipulateur yooyu noonu mooy Cheikh Yérim Seck

ndax bu Cheikh yirim Seck demee ba ni proposition de loi bi war a rëq ndiggu góor jigéen yi jigéen ak jigéen yi sëy ñuy soppi seeni awra ak yeneen xeetu mbon yu ni mel mu ne buñ ko aaye suñu réew du baax ci Sénégal li ñàkk gëm yàlla ci la bokk benn lii mooy ragal ay doomi aadama ba noppi yépp suñu borom ba noppi bëgg a dugal ci bopp sénégalais que ni suñu développement li tax Sénégal jëm kanam dafay dépendre ci organisation yi ci mel ni ONU FMI Banque mondiale wala Agence française de développement moo tax ñu ne leen li mu wax tegu ko ci xam-xam ndax mboolem réew yi jël seen yaakaar gépp wékk ko ci institution yi ñu leen limal ñoo gën a des ginnaaw daañu revenir ci yeneen propos yi gën a graaw yi Cheikh Yérim Seck wax gannaaw intervention bu mu def mercredi 15 décembre ci journal L'Observateur te lépp day caaxaan mais jubluwaay bi lim ci sababoon mooy jéem a xajamal mbaa yàq xelu sénégalais yi ci bésu mercredi 22 décembre 2021 bii ñu war a teg dossier yi ci table président assemblée nationale image bi ñoo ngi ñaan ñëpp partagé ko ci seeni mur Facebook Instagram WhatsApp bu ngeen mënee sax TikTok bésu mercredi 22 décembre 2021 bii di ñëw bu neexee yàlla lañu déposer projet de loi bi daan bépp góor jigéen ci assemblée nationale mais nañu xam ni balaa ñu say yegg duñ ci maslaa sénégalais ñoo dul nangooti ay nit yo xamanteni seen wala seen plume ba seeni position fay jaay ont lañu jaamu ñuy manipuler l'opinion di muus muuslu yew » a pour protéger un groupe une minorité qui xamanteni suñu borom leen digal ñu ñu xex leen ba suñu déjà ndax Cheikh ci criminaliser duñ ci mais lam ko modul sax waxi doomi adama bo xamanteni ne nga aji ngam nga ndax wax nañ ko sank diine amul demi mesure diine du wanewu ak lu ñuy wax kep ci lamagne mais sey jëf ak li ngay défendre mooy nattukaayu su degré ragal yalla ak sa iman nee mom Cheikh Yerim sek moy wax bu Sénégal criminaliser walu ngor jigen manam teug ay loi ngir len suñu da fay subir liñ boycott économique boycott économique boko déggé moy. néna manam investisseur investisseurs yi ñi au Sénégal avons créer une entreprise dañuy daw déjà li ñàkk xam la wala sax ko ci lan développement économique ak fan la këru liggéeyukaay yi bàyyi bitim réew di toll ba gis njariñu ñëw suñu yi di investir entreprise yooyu noonu Cheikh Idim di wax li boycott économique du ñu ay woy defal yàlla yoo xam ni dañoo xëy rek ñëw suñu réew yi di fi investir seeni intérêt moo leen fi bàyyi buñ ko amatul dañuy lem seeni dëbës ndànk daw dellu seeni réew déjà Cheikh Yérim Seck bu defoon tuuti gëstu dina xam ni slogan wu l'Afrique avenir du monde Afrique mooy ëllëgu na slogan bii nii newul ni sax ñun africains ñoo ko créé waa bitim réew ñoo dem ba gis ni bu dee ci wàllum espace ñun ñoo cëppale suñu climat moo gën a mucc en plus am nañ ay fleuve ak lac ba boo bëggee bàyyi soxlaw leen ni investissement yi pour am ndox rax ci yi ay ressources naturelles yu dul jeex ñoo nekk suñu réew yi ñu ne balaa africains yi di am ay moyens di am doole ngir exploiter potentiel boobee suñu borom may leen nañ leen ci jiitu naka la leen ci jiitoo mooy nañu daawandoo songu seen réew yi ci lañ fi ñëwee ñu leen di daggal ay hectares yu dul jeex ñuy liggéey di exporter di yóbbu seeni réew di développer seen économie ñun rek defoon nañ benn vidéo spéciale ci ñaata hectare la ñuy jébbalay doxandeem ba bu ñu mayuwul ñun sénégalais yi yow mii di seetaan ëllëg di nga soxla am terrain bu yaatoo yaatu ngir bay mbaa créer benn industrie bu am am doole doo ko mën parce que lépp jox nañ ko étranger yi ñii la Cheikh Yérim Seck nan dañuy boycotter bu ñu voté loi contre góor jigéen yi moo tax ñu ne leen soit dafa réeri mbir lu bare bari Mana maîtriser wul ni PIB bu Sénégal li Sénégal di produire ci walum kom ñun wuñ ko alal la buy gën di dem ci dëkku nasaraan yi lii ke yi nek fasek mën nañ lako léral étudiant bi gën ndaw bi jang walum kom kom boko ko ci économie bu Sénégal daf la naan alalu borom barké la nam suñu réew mi ngi produire richesse mais richesse bobu nonu ñako ngank ñakoy doxal ñu ci bari bitim réew lañu bayiko ko te alal jooju noonu dañ koy exporter di ko delloo seeni réew donc fii la Cheikh Yérim Seck njëkk daanoo ñi téye bu Sénégal génn fi ak dee la ñu yamale ndax fii mooy seen àjjana duñu fay impôt comme ni mu waree te ñoo ngi gagné ay milliards yu baree bari bu ñu bàyyee torox ak situation bi nu mu mën a demee. leneen li Cheikh Yérim Seck waxaat te muy saaga jëmale ci suñuy ngëm-ngëm ak suñu cosaan mooy nee na réew yi ëpp doole yu ci mel ni France. États-Unis Canada ak yu ni mel dañoo nangu wàllum ngóor jigéen ba noppi bëgg ko yaatal ci mboolem dëkk mu ne bu Sénégal nag décidé criminaliser wàllum ngóor jigéen dafay worook li nga xamante ni waa bitim réew ñoo ko tëgg respecté droit wu ñu ñuy wooyee les minorités les minorités mooy góor jigéen yi jigéen ak jigéen yi sëy ñuy soppi leen yàlla bindee ñiy seeg néew mbaa ay mala moom Cheikh Yérim dafa ni Sénégal bu criminaliser wàllum ngóor jigéen dafay woroog respecté droit wu ñooñu noonu.

moo tax France di aay jigéen di muuru di dem ci yenn bërëb yi France seen mbon yóbbu ne leen ci ñuy tere jigéen yiw septembre 2010 lañ voté loi ne jigéen amul droit muuru ci yenn bërëb yi ndax dëppoowul ak ñoom seen laïcité. jamais nga dégg Cheikh Yérim Seck wax ci lii nga xamante ni ñàkk respecté doomi aadama diineem la. du ko mës a ñaawlu ndax bañ na ko moom ba ci ay doomam ci ay école française la ñu jàngee programme bi jàngal xale bi ko waroo beddi góor jigéen da ngaa war a respecter le choix des personnes moom ci programme bii la inscrire ay doomam kon yenn ci ay position am waruñoo bett ñu mel ni moom France la ñuy jaamu lii faaw mu leer c'est des gens du système France-Afrique ñu mel ni moom dañoo gëm ni waruñu moom suñu bopp bu ko waxee itam du lu mu gëm dañoo jàpp ni ñoom réew yi ci mel ni France am nañu droit tëgg seeni loi yu leen neex donte dafay ñàkk respecté ngëm-ngëmu doomi jàmbur mais Sénégal moom amul droit moom itam tuggul loi ngir ay jëf joo xamante ni suñu borom moo ko dàq muy mbir ngóor jigéen donc lii yabaate la benn ñaareel bi mooy bëgg dugal ci bopp sénégalais ko ñun daal ba ilaa yawmi diin dañoo war a yeew suñuy baat ñu ñuy xalaatal di ñu décideel di ñu définir lan mooy état de droit bañ na ko ba Cheikh Yérim Seck dafa ni bu Sénégal voté loi contre góor jigéen yi dootul bokkati ci réew démocratie yi maanaam moom Cheikh Yérim ni muy définir démocratie mooy comme ni ko nasaraan si xalaatee maanaam daganal ngóor jigéen njaaloo njaay sa bopp diine dootul nekkati benn épée de Damoclès bi nga xam ni mooy tënk doomi aadama bi naan ko bàyyi lii defal lii lii moo doy waar ci suñu soi-disant intellectuels yi mbaa pseudo penseurs yi ci mel ni Cheikh Yérim Seck dañuy dem liir livre tubaab yi jël ko def ko téere jàpp ni mooy xam-xam réew nag mënul développé wu ak ay soi-disant yu mel nii ñoo xam ne amuñ xalaat même bu ñuy développé opinion bu ñu joxe seen gis-gis dañ koy wéer ci ni ko tubaab bi xalaatee ni ko nasaraan si bëggee ñoom la les intellectuels paresseux lu yàqu ci réew mi rek ñooma beneen lay nag bi si te nga xam ne ridicule mooy nee na bu ñu voté loi ngir criminaliser wàllu ngóor jigéen Sénégal dootul jot ci yenn financement au développement te du sax déjà ñun mayuñu lii faa mu leer mo xam FMI banque mondiale wala agence française de développement ni duñu ay organisation yu yëngu ci social dañu lebal ñu leen di fay ci ay taux yu solo li benn mbir la bi ban danger moo nekk ci loolee Cheikh Yérim di développement ndimbal te doonul ndimbal danger bi mooy néew na li ñu di lebal bàyyi ñoog suñu sabo ñu xol fan lañu duggal suñu xaaliss néew na dañuy lebal ba nopi bindal ñu programme nañu fi ak fi ngeen koy duggal melni ni ñoom ñoo ñu a xam li suñu réew yi soxla depuis indépendance ni le les bailleurs de fonds yàgg doxaleek ñun juste pour bañ ñu moom suñu bop exemple bi leen di njëkk jox moy après indépendance ku ne xam ni première et seconde révolution industrielle Afrique bokk ci woon. ba ñu amee nag indépendance né dañuy soobu ci walum développement industriel manam créer ay industrie yu amam doolé ñi Cheikh Yérim Seck di woy ay bayeur ay woy defal yalla ñoñu ñoñu ko ni nañu dédét dañ leen di lebal xaalis ngir ngeen concentré wu dong ci walum mbay mi yeen dee la ñu bàyyil gerte ñi la dugub ñi mbokk ñi ci dess coton ñeneen ak ñeneen walum café ak cacao su ko défé ngeen ñu jaay ñun am nañ ay koy ñu mën ko commercialiser ci suñu marché indi wat ko sax yeen seen rew yi di len ko jaayat fi la continent bu Afrique ci carte développement lolu loolu moo ñu topp ba tey ba tey ay consommateur lañ alors que lepp fi lay bàyyi ko ñen ñu yobé li lepp les bailleurs de fonds yi Cheikh yirim sek di wax ni ñoo mëna tax ñu développer bu ñu bàyyee du bax dañ lay financer ba nopi teugul le programme ne le fi ak fi ngay jaar lepp ngir mëna ñoo teunk lepp ngir développement nek lu ñuy dégg rek ci nopi mais duñ ko gis euh, lii la maître Wadou doon kaas ci kanamu FAO nan leen bàyyi leen duñu lebal ba noppi diñu xaalal bu doon ay xale lañ léegi màgg nañ ba demal suñu nous ne faisons que des redites ça ne va pas je dis un le concept de food assisting est dépassé nous ne pouvons pas continuer à être alimentés comme des mendiants je l'ai déjà dit. Alors, au lieu de nous envoyer des experts qui viennent faire ce que nous savons faire mieux qu'eux, parce que la plupart de ces experts-là, je regrette, ils ne nous apprennent rien du tout. Au lieu d'utiliser 3500 administrateurs qui, vont, qui viennent, qui font des papiers, mais qu'on nous donne les choses directement, sur place, et euh, on va essayer, avec le budget de la, CF, de la FAO, de... expert te yàlla xam na ni la ñuy def ay doomi réew mi ñoo leen ko ndàq fuuf gën leen ko maîtriser li ñu war a comprendre foofu mooy li ñuy wooy aide au développement te newul sax aide au développement ay mécanisme la ngir nasaraan si gën a woy di ñu noot di ñu maintenir encore ci sous développement ci ñàkk. xam nga interview bi Cheikh Yérim Seck def ak l'observateur dafa ni Sénégal dafa signé bitim réew ay protocole ngir protéger borom ñaari tur yi donc bu criminaliser wàllum góor jigéen Cheikh Yérim Seck mooy wax. dañ koy teg ay daan mais moom Cheikh Yérim mënoon naa leeral foofu noonu lan moo tax suñu nguur yi di signé genre protocole yooyu noonu te duñu tàggu ñoom suñu gouvernants yi bu ñu lebee xaalis ci turu sénégalais yi ba noppi daal di koy sàkkal pexe dal di dellu banque mondiale wala FMI ngir ñu baal bor yooyu noonu comme que banque mondiale ak FMI ay banqaasu Nations Unies lañ te Nations Unies mu tëgg programme ngir légaliser wàllum góor jigéen ci àdduna wërngal këpp foofu nag lañ leen di chantage dañ la naan mën nañ laa bal seeni bor waaye faaw ngeen xoolaat nekkunu góor jigéen yi seen réew suñu état yi daal di signé kon Cheikh waroon naa leeral ni xaalis boobu ñu ñuy lebal moo tax suñu nguur yi dem di xaatim loo xamante ni ñun sax duñ ko yëg duñ ko leeral sénégalais yi te li gën a yéeme ci Cheikh Yérim mooy un naa ci ginnaaw ci affaire Bati Plus la toog ci plateau télévision émission Maimouna Ndour fay ne mi ngi soog a gëm ni bu senegal fexé won ba entreprise di bay ko bitim rew yépp di fay seeni impôt comme ni mu waré dotuñ soxla di lebi bitim rew alal ji libanais ak ñeneen homme d'affaires di sacc rew mi kenn xamul nu mu toll xam nga Ousmane Sonko dafa mos a ñëw sama bureau Yérim poste ñuy waxtaan ñuy waxtaan ma ko mais yow li ngay li ngay li ngay diggé est-ce que mën nga ko def est ce que boy li ngay diggé dafa laaj xaalis bu bari mu ni ma. dinaa la benn affaire mu ma li may diggee yépp soxlawuñu benn xaalisu bitim réew pour def ko di ko soxlawuñu xaalis bi mooy lan mu ma li ñuy sàcc rek ci réew mi ci lempo rek. mën na finance waaw mu ne ma bu li ñuy sàcc rek ci réew mi maanaam loo waroon loo xam dafa doon dugg ci keesu réew mi ci lempo ñu koy sàcc rek mu ne rek déjà boo ko jëloon. di nga mën na régler problème yu bari ci Sénégal. mën na financer un plan de développement. te doo soxla xaalisu bitim réew. gis nga bi ma ko bi ma Ousmane Sonko loolu damaa ngi doon douter mais affaire bii laa xam ne li wax dëgg la. léegi bu toogee ba tey naan bu dul bailleur de fonds yi Sénégal dafay dugg ci guuta da ngay poser ay question ban Cheikh Yérim Seck la ñu war a gëm donc li ñuy xamal sénégalais mooy bu ñu kenn détourné mbaa manipuler ñu ci li ñuy dëgmal. muy criminaliser walu ngor jigen te dañ ko dul sax may kenn te ñu melni yërim mën nañu jël ay nar soppi ko dëgg te même bu fekkoni sax mom limi wax mo am manam bu fekkoni dañu criminaliser walu ngor jigen Sénégal nek ci crise mais ragal yëpp yalla la dafa mel nga am dom muy dem di def nak sulu nonu di la dundal xaliss bu lewul nga ne su ko ayelu bon lolu muy def kër gi dootuñu am luñ lek li le Cheikh wax li mu jubal ku gëm yàlla dëgg-dëgg sax du ko wax ndax waxi yàlla amul c'est-à-dire amul mais amul jaay xel mu rëy mbiru góor jigéen moo nekkul debaa ba ku ne di jaay muus di ko interpréter nu mu la neexee ngir lëndëmal ak a jaxase xel yi Cheikh Yérim ak keneen ak keneen kuy jéem a faire face ci proposition de loi bii nii lañ ci yemale. kon taxasolo bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.